Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu ay maqaam yalaawo bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yalaawo taala wa mbokk internet yi nga xamante ne yéenay suivre chaîne bu mag bi nga xamante ne mooy Dakar Instant ñoo am mbégte tey dellu ci beneen numéro boo xamante ne suñu jotaay yu xam-xam lay doon waaye seet si kenn koo xamante ne nee naa àdduna wër nga këpp kenn dootu ko laajte kenn dootu ko présenté ndax ñépp xam nañ ko bu nee soxna Mariama Sy di sët ci Serigne Babacar Sy macha allah rabbi doon koo xamante ne wax dëgg yàlla li nga xam ne ni macha allah kenn ku ne wax dëgg yàlla mi ngi bëgg daw ci ñëw ci moom ba tax tey jii mu xajal ñu mooy dañ koy nga xamante ni mooy Sénégal waaye plus particulièrement internautes yi nga xamante ni ñu ngi suivre chaîne bu mag bii fa fu ñu mën a nekk ci biir àdduna soxna Mariama Sy ñu ngi lay nuyu di la la dalal macha allah ci biir jotaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu. maa ngi àddina di nuyu Sénégal kulli koo xamante ne yaa ngi su ne. ñu nuyu nag euh, kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan. Mm-hmm. di nuyu itam xalifa général. macha këru diine yëpp ñu ngi dugg naa leen asalaamaaleykum. Mm-hmm. wa rahmatulahi taala barakaatu rawatina fi ñu bokk. ñu mm-hmm. teewaan fa ñu jébbalu. parce que suñu xol ne suñu yéene nekk fa ñu ngi leen di nuyu ñu leen di ziar di leen di nuyu suñu xalifa général mm. di ñaan yàlla oyofal ko yen bi yàlla gën ko taxaw yàggal ko fi te it li mu sumb muy jumaay jumaay Tiwaawan googu ko mm. yàggal ko bañ julli ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñuy mm. nuyu sëñ di koy ziar di koy di joxe suñu nuyoo waaye ak suñu nuyoo foofu mm-hmm. ca diwaanu Touba di dem Njaasaan di nuyoo Euh, di dem euh, Kaolack di nuyoo ngir nuyu kulli këru diine ak kilifa aada ak euh, kilifa boo xamante da ngay ci wàllu ñaan ci wàllu asraar ci wàllu loo loo mën di yëngatu mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa bitim réew di nuyu waa àddina di nuyu waa Sénégal di nuyu kulli koo xam ne yaa ngi teewlu te yaa bàyyi xel Cheikh Talla di leen di nuyu naan leen bisimilah macha allah jërëjëf soxna Mariama Sy ci nuyoo bu am solo boobu naka noonu yóbbaale na suñu nuyoo mboolem xalif généraux yeeg mboolem kilifa diina kilifa aada ak kilifa cosaan ba ci jiitu réew mi tam ak mboolem ñu topp ci ginnaaw si euh, ak bu bees sax xam naa soxna Mariama ciy feem ma ñëw fekk ko ci feem bu bees sax bala maa wàllu seet ak yee mu àndal li euh, sa kaw ñee nga teg ko li sa kaw laa bëggoon nga wax ma li lu mu doon ndax dugg si naa mu doon lu bees ci man ma bëggoon xam lu mu doon ak njëriñam ah waaw mënut a ñàkk ji. jërëjëf Cheikh Talla ñu ngi lay ziar. Mm-hmm. di la jox sa yéeguwaay. Ah, di lay nuyu. waa Talla dañuy sant yàlla. Mm-hmm. ndax saa su ne rek bu ñu si ñëw di fëlal nit ñi fu bees. Mm-hmm. ndax nee naa loo gis yeesal da ciy baax. tey gën a gis waat gën a jàngat xam-xam. da ciy baax léegi gis sama tax na Talla. <laughs> waa du seet boo xam ne seet bu bees la boo xam ne dañ ma ko jox. ndax nee naa saa su rek. dañuy gën a diisu te it dañuy ànd ak suñu rawaan mhm. di koy neexal moom tamit mu ñuy neexal di ñuy dolli ndax nee naa loolu sant wa sallam waaye yàq yu si mhm. na mhm. ci seet te naa ñu saala lépp day doon wàllu sant day doon itam wàllu loo xamante ni itam dañuy sant di sant suñu xalifa di sant suñu suñu sëriñ muy Seydi Aboubacar Talla ndax nee saa yi su bu ñuy wax euh, nit ñi di daw si di ñëw si dañ koy sant yàlla ndax it yokkute lay doon ci ñoom. Mm-hmm. te buñ sañoon it wax nit dañ koy teg mm-hmm. sa xol. <laughs> naa def di dégg xam nga man damaa tàmm lu ma gis rek ne sama gannaaw moom laajama wax ndax fi li may laaj itam du man maa koy laaj waaye damay jéem a nekk ci xelu doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi seetaan bi wala ñi ngi am soxla tey ji bëgg koo saafara seen xel dañuy jéem a nekk pour mën a poser question yi xam moom lañ leen war laaj ndax xëy na bu ñu amoon xam-xam bi wala baatin bi amaana ñoom dañu xalaat ñu sa saafara lañ ko mais amuñu ko kon yéen ñi ko suñu borom jagleel tam faaw ñu di jéem kéemtulaay kattan wéetaloon ak yéen nga ba mën a xam dama xamoon soxna Mariama si ci seet seet ak gerte xool ci gerte moom ndax naa ko ku moom sa kër moom foo mën a ne ci àdduna xool ci gerte moom gerte moom du jóg ci sa loolu moom wax dëgg yàlla xam soxna Mariama si ci seet ak pekkaaw xam soxna Mariama si ci seet ndox xam soxna Mariama si ci ak suuf tey ma ñëw gisaat fi bu bees moo tax mu xawoon ma di dafa moon lan la waaye loolu ko ci bokk ci xeetu seet la bokk ma bëgg xam léegi seet yi ngay seet yëpp lu ñu la defaatale dina ko jox la wala yow yaay gëstul sa bopp ba jot ci wala dafa am nu mu demee naka lay demee daal ba dikk ci yow parce que li nga boole yëpp ci xeetu seet macha allah yàlla na yokk mais benn bu ci nekk ak defe naa am na lu lu fu fu mu jógee. Mhm. daal seet moom dama naan sama yëf la. Mhm. te du ma ci tànn ne du ma ci tànn lenn. wallaay jërëjëf te lu ma yàlla suñu borom may la mhm. waaw. ndax nee naa seet ci pettaaw lañ ma njëkk a jox taala mm-hmm. mais taalibi cheikh la mm-hmm. taalibi cheikh ahmed tidiane sarif abul abbas bañ ma joxee juróom-ñeenti pettaaw lañ ma njëkk a jox mm-hmm. taal ma delluwaat ñu jox ma fukk ak ñeent ma dellu ñu joxaat ma fanweer ak juróom-ñett mais taala ay taalibi cheikh lañ dañoo jël wér te dañuy wér dañuy laazim suba laazim doon laazim fajar ndax itam dañuy saatoo ak tarixas cheikh ahmed tidiane suñu kuru sangi taal sa dañuy wér suba laazim <laughs> ndax te itam taalibe Cheikh premier taalibe Cheikh mooy salaatul fatiha te foo ñu fekkee ñu ngi wedd salaatul fatiha moo tax pettaaw tegee nañ ko ko mhm. comme yàlla da koo sib araam mais lu ñu sib moom dañ koy sib ñun ñëpp daal mhm. may seet ci ndox di seet ci suuf mhm. di seet ci xottu gerte di seet itam façon seet yi bari na taal waaw kon loolu sant yàlla ak julli ci Seydina Muhammad mais seet moom taal wax dëgg ay rawaana ko jox ci samay rawaan. Mm-hmm. ci samay tuur. ci mm-hmm. samay xàmb ci samay cosaan saa yu ma yeggee jox ma seet bu bees. total lu ma wax ni yàlla xam ne du ma ci dellu. Mm-hmm. baat bu ma la wax du ma ci dellu. te loolu yëpp sant yàlla julli ci Seydina Muhammad. nee naa la. sàcc ji muy seet ko doon. fekk si suñu xàmb fekk si suñu tuur. suñu borom jox ñu allahu subhanahu wa taala. kon dañuy sant yàlla julli mu doon lu am solo wax nga ko loolu seet moom xëy na xëy na ñi la xamul wala ñi la mosagul. ñoom mën nañu koy xam waaye xam ne wax dëgg yàlla fekk naa la ngay seet en direct nit ñi di na am na lu ma xam xëy na ñi mosagul xamaguñ nag waaye xëy na du ñàkk dinañ xam mais seet euh, bi est-ce que ni ngay seetee ci xollu gerte xollu tibet wala ni ngay seetee ci ndox nit ki day ñëw te nga seetal ko ci façon boobu wala yow nit ki day ñëw nga seetal ko ci li nga sentir ne fa nga ko war a man a gisee waaw amul ma ci santé ndigal lañ may jox ok ndax bala ñëw dañ ñaama diwa ngi ñëw lu may dégg jiw nga ñëw si yow bu ñëwee xoolal ko ci fii te boo ko xoolee foofu nga koy gis te duñu tegg dara si suñu parcelle. kon mm-hmm. nag xam nga sant rek. Mm-hmm. ndax nee naa buñ lay dee ngay wax. ngay toog di wax mm-hmm. ak ay jinne toog di wax ak rawaan. ah sant yàlla la ndax sang bi dañuy toog di wax ak ay rawaan dañuy toog di wax ak suñu tuur toog di imaginer bu ma jàkkaarloo yow mën naa la wax li nekk ci yow. te duma laal dara. c'est que nit ñi ñoo bëgg loo xamante ne maanaam lu lu lu lu raar. nit ñi dañoo bëgg lu raar mais yàlla xam damay seet ci loxo. damay jàkkaarloog sa visage toog di lay wax loo xam ne du de damay ragal sax tax li ma doon jigéen mais dama tarbiya xam-xam jàng xam-xam mm-hmm. macha allah fekk ko sama kër maam jàngi ko mm-hmm. dama ko fekk sama kër maam daal di doon cere yokku ñeex mm-hmm. ndax nee naa xam-xam bu nekkee ci yow dëggantaan ku la xam xam ne dëggantaan jaay jàkk day xam ne lii dafa nekk ci yow dafa xam ne lii dañ ko sol dañ la ko sol te xam-xam xaw ma bokk ci ah? te xam-xam xaw ma bokk ci xaw ma bokk ci xam nga ndax lan xaw ma it mën na cee ndax loo mënul mënoo ko loo xamul xamoo ko man bëgguma koy fëgg sa dënn bala koy baat mhm. loo am yàlla la loo mën yàlla la ndax lii ma mën yàlla la bu ma ci bàkkoo xam-xam bi romb ma léegi bu ma ci tiitoo mbaa ma ci jaayante mbaa ma ci bëgg arab alal du ma dara doot fi nekk daara mhm, mhm. ndax nee naa xam-xam danga koy tarbiya te li sàkk seet bi wane dama koy joxe ba mat ndax nit yenn saa yi nga toog di waxaale seet ma bàyyi la fa dem seeti leneen ndax boo gisee loolu maanaam tey maanaam seet bi li mu laaj mooy dërëm da ngay joxe dërëm bu dee fukki dërëm la laaj nga joxe fukki dërëm dërëm bi ma ko ci wàññee nag siiru bi day romb dem te bu ma la seetalee joxoo ma dërëm itam bu ma tëddee feebar rab yi dañ may dóor ba bët set hmm? jiñ naa ko si Seydina Mohamed ndax boo déggee ma wax loolu samay mbokk ndeysaan dañuy bëgg a ñëw seetlu mais mën naa laa seetal nga teg fi sa junni ma seetal booy dem ma yëkkati fukki junni jox la hmm. mais seet ko waxaale hmm. li jox bu ko romb ndax nee naa seet loo ci def lu bokkul ak sàrt bi ñu la ci jox day romb dem la day romb dem ndax xam-xam lépp loo ci def lu tënkuwul ak liñ ca jox itam day dem ndax nee naa li dañu koo jox ëllëg yàlla mën na ko jël jox ko keneen mm. ëllëg mën nañ mm. mm. a jàll nekk ci leneen mm-hmm. Mm-hmm. na solo jërëjëf soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar yéen a ngi koy dégg noonu macha a woo wax dëgg yàlla moom ci boppam moo lay wuyu boppam ndax moom nee naa donte am na ay sa staff boo ko boo ko entouré entouré sax waaye daanaka li muy wuyul boppam ay téléphone am moom moo ëpp macha allah rabi ba tax na loolu itam ñu bëri dañ ci am mbégte ndax leen léeg bëgg na fi waa Serigne soo xam ne pour nga jot leen téléphone problème lu taw donc yomb gi ne ñu ngi lay teewlu itam am na solo lool. bokk na ci est-ce que ci wàllu seet mës nga cee am anecdote par exemple seetal nit mu ngi gisuloo ko wala yu mel noonu. mës naa seetal jinne euh, boobu ñu ngi safir di liggéey diggante tàkkusaan wallaahi. ak timis wallaahi wal kitaabi. Mhm. ñu koy seetal di koy seetal di koy seetal muy déglu ne teg. Mhm. ma ne ko seet jeex na mu ne ma jeexul da ngay continuer. nekk ci digg wéyalaat ak moom rek. <laughs> ba Caaka Njaay nekk nekk ca nekk ca nekk ba ma sonnee ma ne ko ah sang bi defe naa li ma lay wax kii ne ma dëgg la gis nga ma waaye am na lu ma soxla woon nga wax ma ko ma ne ko ci biir ndox bi nga nekk laa lay wax sëñ bi yaa ngi dëkk ci biir ndox nekk fa say njaboot xam ngay dem ak moom mu lay réerantal ngay dem mais loo mën jàng ko xam ko. Mhm. téye nga maîtriser ci day ñëw nga seetal ko rab day ñëw dëmm day ñëw maanaam ci mhm. gàttal. Mhm. ñu jéggal ndax ñun lu ne la ñuy gis. kon nag amuñu fi di toog fi di wax depuis. ëpp na 10 ans toog di wax. bu doon lu dëggul mbala lu nekkul si ñoom duñ toog depuis 10 ans di wax ba ñu seet kenn seetul ba ñu jóg kenn jógul. waaw. mu doon lu am solo soxna Mariama loolu moom maanaam. muy nuru nuru li tëju nit. Mhm. mais dañuy sant yàlla rek ànd ak Seexu Tijaan ak Seydina Mohamed. ànd ak it sëñ Babacar suñu sant yi mhm. nga xam ne sañu ñoo wax te duñ ko di koy tëb fenn yoon ñu sant rek waaye macha allah façon bu ne ñu ngi koy jànkonteel si mhm. suñu liggéey waaye ay jigéen lañu waaye dañuy jéem a jàmbaar jàmbaaru rek waaye lu nekk lañ si gis sant bu tedd am na solo soxna Mariama Sy wax dëgg yàlla leeral boobu ndax xëy na peut-être xëy na nit moom xëy la muy yëngu du ñàkk bis mu am ci anecdote waaye lii nga wax solo te naa li nga wax ko seete woon ñoo xam ne wax dëgg yàlla ba muy xew itam ña nga foon toog am naa ma ci xam am naa lu ñu ci fekk itam ñu ci maa ngi gis fan yi passé nii nga am benn benn benn vidéo boo def wax dëgg yàlla euh, wax ci tudd ci ku mel ni Ndella Madior Diouf mi nga xam ne moom woon Safir gi ngay gi ngay tudd léegi nii ma gis moom it mu dem répliquer def ay tontu te pourtant wax ji nga wax ni mu wax bu ñaaw wala wax bu ñagas mais tontu tontu moom moo xaw a doy waar lu sabab loolu fi mu toll. ndax xëy na moo xam mm. wax mu tontu ko ñu nekk ca leneen ndax ci yoon la ñu nekk. te yoon ba ñu nekk dañuy mottali suñu mission. fu mm. am jot nag dañuy tontu duñ la tontu ñun avancé nañ leneen la seet. Mm. am na solo bokk na ci maa ngi maa ngi maa ngi ko doon bëgg a wax sama li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy soppe yi nga xamante ni ñoo ne bitim réew toujours ba tey Mariama góor ñi ñoo ëpp li ñëw ci moom rawaan bi nga àndal la wala yi nga àndal moo tax góor ñi ëpp li ñëw ci yow parce que da dem foofu léeg-léeg foo xam ne dafay fekk jigéen ñi góor ñi mais yow dañu gis ñu li ëpp ay góor yàlla ñoom daanaka ñoo xam ñoo ñoo ñooy ñooy soppe yi loolu lan moo ko waral. rawaan bee góor. Mm-hmm. rawaan góor moo tax fu ñu góor ñi ñuy dawal wut si. ok jigéen nag. boo bëggul lu baax mbala xamul lu baax dañuy bañ waaye dañ koy sant yàlla def ko si suñu ginnaaw mais jigéen ñi itam loolu la ñuy soppee tubaab fakkaala waa bitim réew mm. ndax samay soppe yi nekk bitim réew mënu ma leen compté góor ñi dañ may jógee di may tiitaroo mm. te rawaan bee góor taala li nekk ci man mooy góor waaw ndax booy xool li may waxee xam ne fitu góor yàlla dëggantaan laa yor sëñ Sëñ Babacar moom mënta waaw bu ma rombee mm-hmm. gars dañuy taxaw te loolu mbirum yàlla la góor ñi ma sopp bëgg ma mm-hmm. waaw góor ñi dañ ma sopp macha di may safoo te mm-hmm. loolu nag sant yàlla santati yàlla santati yàlla ndax nee naa bu la góor ñëpp dawal wutee si nga xam ne rawaan bee góor man góor ñee sama lépp macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ba ci wàllu liggéey bi nii gis nañ ci tamit wax dëgg yàlla euh, am na am na am na yoo xam ne daanaka daaw ci waxtu bi génne woon ko fi mu mu mu mu woon réew mi ren ci waxtu bii nii ren lan nga génneel daañu yu bees yoo xamante ne fi ne wax dëgg yàlla war na leen mën a jëriñ parce que soxla yi bëri na yitte yi bëri ku nekk ak mu ngi leen ñaanalee ñu sëy te 2022 bëgg naa ñëpp sëy góor gi nga xamante ni jabar tën na leen. Hmm. itam bëgg naa ñëpp am jabar ndax loolu day nekk mbir mu rawaan. ndaxte itam xale jigéen ñi nee naa wax dëgg fa ne yàlla bëgg nañ borom kër. Mm. mais xamuñu ni ñuy aw mun a sëyi. Mm. pour mën a am borom kër ku fi ñëw te bëgg jëkkër boo ñu ñaanal la. Mm. ci semaine nga am góor yàlla bu bëgg soxna te yàlla tax. nga bëgg koo jaamoo yàlla boo ñëwee ñu ñaanal am koo jaamoo yàlla. waaw boobu daal laa indi bu bees ndax damay gis na ñi may jàmbat sëy bu ma bëgg naa jëkkër gisuma. mbala itam. gisuñu wala dañuy taamu wala non non am na ñoo xam ne sarawaan itam ku ñëw mu dàq ka mm-hmm. yooyu it day am. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy gis ba bëgg a dugg waaye du mm-hmm. xam nga borom mi bagage loolu ñoo koy def am na ñoo xam ne rab la am na ñoo xam ne jinne la am na ñoo xam ne itam dañuy dàq. waaye ñuy dàq duñu bëgg waaye ñi may jàmbat dëggantaan. ay rab a leen tënk te ñëw ma ñaanal nga sëy noo def ak ñi am daal dëgg-dëgg ndax damay dégg faru raak jëkkëru raak mu tudd coro raak ngi kenn xamul fi mu toll ni may def ak ñoom rawaani rab bi dañoo sonal gars yi. dañoo sonal gars yi dañoo lëmbee àdduna wërël yëpp li koy waral mooy. Mhm. ñu ngi ci dëkkuwaay yi. Mhm. ñu ngi jàkkaarloog nit ñi fu ne la ñuy toppee nit ñi ci bureau yeeg ci place su liggéey yeeg ci oto yeeg fépp rab yaa ngi fees fa dell. Mhm. ndax ñu naan sarax dañ ko war a génnee. te borom dëkk bee war a génnee sarax. ndax fii ku fi ñëw xam ne pencum la daaru la. te la daaru day laaj sarax dañ ko war a jox sarax. dañ ko war a jox sarax bi nga xam ne moom lay laaj. sarax bi muy laaj nag xanaa dem cour de cassation fee ñuy da tuuroon. Mm-hmm. nga dem tuuroon ko fa juróom-ñaari nag yu weex. buñ ko ko tuuroon wallaahi rab daal di fi génne élection yi di ñëw dañ gis lu doy waar ci kanam xam naa dinañ ci ñëw ndegam neex na yàlla suñu borom. Mm-hmm. mais daal nañu sax génne sax ay mooy borom réew mi. Mm-hmm. moo war a dem ba foofu génne ko juróom-ñaari nag yu weex lay laaj. pour rab yi daal di wane ginnaaw daal ndax accident yi bari na. donc fii ne waxuma la accident ba ci fii ne fii ne dee gi ak rey rey rey sa xaru xaru sax Sénégal bu ñu demee ba léegi xaru commencé fees. borom dëkk bi mooy laaj te def te dañ ko war a tuur. kon xew-xew yu ci bëri nii du sababu borom du sababu nit ki mais fi mu toll nii daanaka. Mhm. lu lu lu leen di xiirtal la ba ko daal maanaam. lu leen di xiirtal la. ok. lu leen di xiirtal ndax nee naa dëkk bi léegi tuur bi comme ni ñu koy waxee bàyyi naa ray gi bari na. ñun mm-hmm. ñu tey ñu ko rawaan yee xabtal nañ ñëw rawaan yoo xam ñu ay jullit ay feer lañ ñoo sotti fii ci dëkk bi da ngay wax ak nit léegi mu ko bañ nga yegg ay. Mm-hmm. da ngay wax ak nit léegi daal di lay jàpp. wax ak nit léegi mu daal di kii ba ci embouteillage bi booy xool. Mm-hmm. ci dëkk bi marché yi. ci ñi pencoo yoo xam dañ ciy kii te àdduna amul benn solo. kon lay defoo nit ñi la nit xabtal rab la dañuy génne sarax yi di tuur. di saraxu réew mii ñu koy génne senegal ndax fi jàmm rek ma sa te jàmm rek a fi xew mais tuuf deret bi fi musul am am na fi da ngay gis nekk ak sa jëkkër tëdd moom ngeen fanaan nekk jàmm nga jàmm ko bala nga nekk sa doom ray ko. waaw ah nañu waxante dëgg. man bi dafa commencé ay sarax nañu tuuru. Mhm. nañu tuuru di génne ay sarax macha allah. mais tey jii bu ma la laajoon na ban sarax ngay nga ngay ngi digal population bi fi ne nga xam ne kenn ku ne moom war na def sarax bi ngir moom ci boppam a aw mën a mucc ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooy aw ñooñoom tey jii ban sarax lay doon. kenn ku ne war nga génne kilo mboq kilo dugub benn mboq bu nekk. kilo mboq kilo dugub bu ñu ko génnee incha allah rabi daal dëkk bi day daal. ñu bari dootuñu ko déggati dina fi wàññeeku maanaam. Mm-hmm.